yàlla nag soo nekkee ci ay mbiram mënoo ñàkk dara. danaka buur bi yàlla xaarul Pentecôte ngir rekk may ay taalibeem lu ni mel nekk lu ñuy gis ci Fidias. nguur si toll ci juróom fukki at ak li muy liggéey dafa sel sax loo xam ne du ndaw. lii nag daanaka maye yàlla la damay defar ay statuette di ko defaree nag li nga xam ne moom mooy plâtre ak filasse waaye itam ak yeneen i matière mieux man daal dama yaakaar ne Vierge Marie bi daanaka moom moo ma daal di tàmm ngir ma def liggéey bile mënuma ci dara nag ci wàllu ngëm la bokk. ni mu taaroo lool la. bëri couleur lu ni mel muy liggéey rek ci tàngoor woo ne ni yàqul dara ci bëgg-bëggam. ngëm mu am nekk rek lépp luy am amam. je me sens li may def nag daf ma neex bu baax te it dama ko bëgg ginnaaw loolu sax daanaka moom mari moo may fay. àddunaam yëpp nekk rek ngëneel na mu ko xamle. les grâces on am. ngëneel yi nag mënaguñ ci wax dara ndax nag ayu bés képp laa fi amagum. ci bëgg-bëggam mi li daanaka dund na rek kéemtaan. c'est pas une histoire man de dund naa ko fàttaliku ma nag ban at la woon maa ngi nekkoon Abidjan ki nga xam ne nag mooy Vierge Marie daal di may feeñu nekkoon ci asamaan loole nag yemoon fukki fan ak juróom ci weeru août mu xew nag samay bët loolu nag miracle la. lu di mel déggulet rek muy ñëw ci pèlerinage marial bu Popenguine artiste bi la bàyyeekoo ci réew ko Côte d'Ivoire mu ngi wéy rek di dund géntam na mu ko tuddee. Fidias jamono ji li xaar rekk lu gën loolu yépp ci tànki Mariama